maa ngi tudd Babacar Guèye di directeur général digital store nekkoon aussi directeur général CCBM automobile bi ma fay nekk di liggéey nekkoon na aussi directeur général CCBM électronique bi may jóge CCBM di def sama mbiri bopp maa ngi nekkoon directeur exécutif kon li may faral di wax rek CCBM et cette entreprise là qui m'a permis de remplir les plus belles pages de mon CV. kon euh, panel bi ñu doon traité tey dafa demoon ci wàllu euh, high tech électronique ak liggéey bi nga xamante ne sëriñ euh, CCBM def na ko enjeux yi ak perspectives yi donc ñu sekkoon ko ak sunuy naataangoo yoo xamante ne ñoo nekk doon CCBM mooy liggéeykat yu xarañ ku mel ni Mouhamadou Makhtar Lo nga xamante ne nekkoon na directeur du SAV. ak directeur de la première usine de montage de téléviseurs et de climatiseurs de CCBM ak tamit ku ñu naan Mamadou Touré actuel maire de Thiaré et qui est directeur général de Numérite et qui a aussi directeur du programme de fidélité de CCBM à l'époque donc euh, ñu waxtaan ci Euh, coppeeku yu am solo yu mag yi nga xamante ne CCBM andi na ko ci distribution électronique informatique ak euh, électroménager wax ni bi muy ñëw daanaka concept de garantie ak de service après vente kenn xamu ko woon bi muy ñëw butigu télé yi daanaka ay boutique yoo xam ne dañ doon dajale bagage yi rek jal leen moom mu indi concept de showroom moderne wax ni li am Dubaï am Europe war nañ ko am Sénégal dugg ci showroom boo xam day climatisé nga yegg si ñu servir le kafe ne lan nga bëgg nga jaay ba noppi ñu jox la numéro de téléphone ne la am nga garantie soo amee jafe-jafe wooteel fii. loolu euh, mu nekk loo xamante ne dafa jël Sénégal tiré ko vers l'avant te jamono bañ koy def c'était pas évident année quatre-vingt-dix yi ak début année deux mille yi euh, nga am xalaat yu mel noonu waaye CCBM yemu ci. dafa dem ne du ma continuer rek di def comme nit def importer télé rek jaay ko damay def partenariat ak le géant coréen Samsung daa di def usine de montage boo xamante ne ay jeunes sénégalais yoo xamante ne ñu xarañ lañ génn ci école de formation yi am seen diplôme ñooy sekk liggéey bi di ko doxal. nekkee ci bërëb euh, bërëb boobu jox la lu bëree bëri euh, bokk ci ñi la formé ba nga nekk un manager atteindre benn niveau bi dugg fi ci benn niveau bu yemamaay dem ba mujj ba nga nekk directeur général kooku sant yàlla rek.